ñu waxtaanee euh, révision exceptionnelle lu liste électorale yi nga xam ne daanaka mën nañ jàpp ne bi mu tàmbalee fanweeri fan ak benn ci wàllu ci weeru juillet ñu ngi daanaka ci cappaandaw gi ndax suba la war a jeex révision boobu nag liñ ci mën a wax mooy ci taxaw seetlu ci suñu taxawaay en tant que ñun acteur politique rawatina ci sous-préfecture Grand Dakar bi ak ci commune Sicap Liberté bii ñu bokk lañ ci seetlu jëlee ko ci suñu ndaw yi nga xam ne ñoo ñu toogal ci commission administrative yi ak suñu responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi suba ak ngoon di dem di waxanteeg askan wi di leen ñaax di leen sensibiliser mooy def nañ opération bu mucc ayib moo xam ci wàllu organisation bi nga xam ne administration territoriale bi moo ko yore moo xam ci wàllu ñaax ak sensibiliser bi nga xam ne moo ñu war ñun jëmale ko ci askan wi ndax keroog bu élection jotee kenn ku nekk mën a indi sab kàddu ci doxalinu gox bi loolu nag rafetlu nañ ci ñun taxawaayu administration teritorial bi ndax xoqatal nañ leen xoqatal bu war bu mënoon tax opération yi yàqu waaye defuñu ko dañu taxaw topp ci seen liggéey ndax citoyens yi ñëpp benn lañ te ñun acteurs politiques yi dañu war a maanaam dépasser léegi bu élection jotee rek ñu jàpp ne war nañu mën a manipuler wala ñu wax naka sudul noonu lépp rekk pour fexe noo amee nit ñi ànd ak yow élection li koy joxe mooy waxtaan ak nit ki bala nga wax doy ko convaincre ko benn ñaar mooy boo waxtaaneek moom ba pare nga fexe ñaax ko ba mu mën a dem voter ji loolu nag ñun responsable yi ñoo ko war a def travail de terrain la waaye du liggéey boo xam ne da ngay nekk ci ginnaaw téléphone wala na nga nekk ci ginnaaw leneen di sos di wax lu dul amul wala di junj loo xam ne ku ko dégg mën naa jaxase fekk loolu du réyalité kon révision électoral yi ñun waa euh, coalition Benno Bokk Yaakaar bu commune Sicap Liberté rafetlu nañ ci ni ci coalition bi taxawee ndax taxaw nañ ci fulla taxaw ci fayda def ci seen seen kéem kàttan ndax fi ñu jëm moo ñu ko jaral dañu dëgmal ay élection yoo xam ne dafa am solo ci li président Macky Sall namm def ci réew mi moo xam ci yemale gox-goxaat yi ci anam yi nga xam ne si wàllu capital humain bi la si wàllu territorialisation des politiques publiques mais loolu lépp li solo mooy jàmm ji nga xam ne moo wënd moo wënd moo laxas activité yooyu ñuy def kon tey lépp loo xam ne toll na ni dayo président Macky li mu yéenee askan bi suñu dayo toll na noonu fii si biir commune bi pour ñu mën ko taxawal gañe ko jox ko ndam bi te lépp nag dañ ko teg ci yoon ndax balaa ngaa respecter sénégalais yi da ngay respecter sa bopp ba pare te respecter sa bopp mooy yoon yi nga xam ne sa réew charte yi bind na ko tëral ko ñun ñëpp ñu ànd ci nga mën ko wormal te tey bu fekkee ni nit ñi dañuy junj loo xam ne amul dafa yomb torop nga taxaw ci presse bi rek di yuuxu Masamba sàcc na Masamba yëpp na ay électeur jële na leen ndar loolu lañ ko war a bàyyi sant yàlla nag wala ndokk bi nga xamee ne sénégalais yi wane nañ ne ñoom ku ci ne tekk tamit bu bés ba jotee la nga war a def xam nga noo koy defee xam nga fan nga koy defee te xam nga ca kan nga koy jëmale ndax nag ñun ñëpp ku nekk yaa ngeeg say bët yaa ngeeg say xel yaa ngeeg sa nopp yaa ngeeg sa njaboot boo bëgg sàmm aar ko kon tey vraiment ñun li ñuy wax fii biir euh, coalition bi mooy conférence des leaders yi xàllal nañ ñu yoon bi wax nañ ñu fan la ñu war a tegu ñun ñi ngi wax ne danañ ci tegu ak fulla danañ ci tegu ak fayda ndax dogu gi ñu bëgg te muy ndam li ñëw Benno Bokk Yaakaar Sicap dañ ko fas yéene boole ci natt wi nga xam ne mooy doon natt buy jëmmal di màggal vision wu président Macky Sall te muy PSE bi donc maa ngi leen di sant di leen gërëm. waaw xam nga liste parallèle yi moom wax dëgg yàlla li nga xam ne seetlu nañ ko ci. mooy bennoo am na ci déjà expérience liste parallèle moom mosul ñàkk ci wàllu élection toujours day am mais li nga xam ne wax dëgg yàlla seetlu nañ ko ci mooy 2014 am nañ ci déjà expérience boo xam ne du woon expérience bu bu neex ci wàllu surtout département Dakar kon tey lii ëpp solo mooy bennoo comme ni mu ko tàmm di defee nga xam ne saa événement majeur amee dina taxaw ci xel mu dal ci vraiment lucidité mu def les bons choix danañ continuer def loolu boole waale si également yeneen rëq-rëq yi nga xam ne mënul ñàkk ci dund parce que booy dund di avancer faw de temps en temps nga faqastalu boo faqastaloo ba xool gis ne ci xeer la beneen yoon di nga gën a defaraat sa doxali kon loolu aussi dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax ba nga xam ne su fekkee ne ñun ñëpp jàppandoor nañ ne Sénégal rek dañu tax a jóg vraiment dinañ def sacrifice yi war te sacrifice yi war yaakaar naa ñun ak camarades yëpp xamandoon nañ ko conférence des leaders bi dogal yu mu ci joxe en bon militant discipliné ñu def ko mais li ëpp solo mooy travail terrain bi ñu continuer ko li ci des nag ñu continuer ci waxtaan ci concertation euh, su ko defee ñu xam nu ñu nu nu ñuy euh, jàmmarloo weeg euh, difficulté yooyu yëpp nga xam ne ñëpp la concerné tey foo mënti dem Euh, acteur politiques yaa ngi manifester seen ambition mais ca cappaandaw ga moom comme kenn rek kay dem ñu xool anam bi gën pour bu ñu demee ñun li ñu bëgg te mooy gagner largement ñu mën ko am jërëjëf